tey teel nga ñëw nag. comme d'habitude imaam 9h30 ngi ci mais laajal waa presse bi yëpp nuñ ma <laughs> mhm. mhm. en tout cas c'est rare ma dem mhm. émission sans loolu lañ ma xamee. parce que loolu laa leen ma ne imaam yàgg naa ka dalal mais avant l'heure lay daal di ñëw toog j'étais tellement content de ton parce que vraiment euh, témoignage bi nga def dafa dafa problème bi. léegi nag euh, kon loolu dal ma bu la joxee ay vertige toog rek la tëdd ngay def. kon di jéem a forcé su ma forcé woon ñëw ci émission bi mm-hmm. Mm-hmm. du am qualité du tal dara boo may sax yaa ma yërëm xool ma da dawoon euh, instant boobu da daw <laughs> question yi actualité bi tàng na mosquée yi ni ñu ko tëjee ainsi de suite ñiy ubbi maanaam imaam dafa dafay dafa daw yenn question yi. moo tax ñëwul non non dawuma ko la preuve mooy que ni. Hmm. question yooyu commentaire yi am na ñu ko bind de. waaw waaw bon am nañu liberté bind ko du du benn problème. Hmm. Euh, commentaire bu nekk rek mën nga ci jàng dara. dëgg la hmm. donc euh, voilà moo tax man commentaire en général nii su ma posté man sama bopp ci dara. danaa jël une heure de temps. pour lire commentaire yi ak répondre li mu ci mën. doog jàll ci leneen. sinon tam da ngay yendu ci commentaire yi. dëgg la mais loolu ñooñu am nañ droit gisee noonu parce que nit dana def loolu. te nit la mais Euh, ci question yooyu ñuy wax daanaka bu dul réew mi FM. Mhm. question yooyu bu ci nekk exprimé wu naa ci. Mhm. soit am na keneen beneen journaliste bu ma laaj ma tontu ci. wala ma bind ci. Mhm. kon question yooyu ñuy wax yëpp nii. moom ngay daw dawoo ko. <laughs> daw ma ko parce bind naa ci. xoola koor gi. chaque jour dinaa bind au moins deux postes dans la même journée. ci question yooyu yëpp ba ñuy naan imaam non bul dugg ci détails yeeg gars yi. et cetera kon on peut pas reprocher de ne pas m'avoir exprimé sur toutes les questions ba mu des nag peut am na question yoo xam ni xëy na échappé na sama vigilance mais tamit suñ ma ko laajee. ma tontu kon kon question daw. question mais mais imam naka nga gis. ñu lay woowee moom valable la la Guy Marius Sagna des des des imams looloo si wax. bu fekkee liñ ci jublu. waaw mooy que ni. koo ah, xam ne ko xam nga ni dañ la koy woowee. Euh, bon yëguma ko woon imam deux points laa gën a laa gën a yëg. am ñu wax la la Guy Marius Sagna des imams waaw ah, am bon. Euh, bon su fekkee ni. liñ ci jublu. waaw euh, c'est pas la personne de. Mm-hmm. Guy Sagna mm-hmm. mais le fait que day défendre ay causes justes. Mm-hmm. Euh, et cetera ñeme def ay sacrifices au-delà de ses intérêts personnels et cetera bu dee loolu la. kon loolu c'est un honneur pour moi. parce que man yaakaar naa ci lu mel noonu lay jéem. ah jéem a défendre la cause islamique jéem a défendre l'intérêt euh, du pays parce que pour man l'intérêt du Sénégal. Mm. se confond aussi avec la préservation des valeurs de l'islam mhm. euh, mais mais tey jii imam lan moo waral sa engagement surtout ci réseaux sociaux yi dañu gis ni euh, vous êtes très présent maanaam da nga da nga présent ci réseaux sociaux yi question d' actualité yi nga xamante ni sax religieux yu bëri duñ ci nangoo wax imam Kanté moom da cee ñemee wax euh, souvent nga gis ni sax da ngay am ay commentaires wala ñu lay attaqué ci mm. réseau sociaux yi poids bu méttee métti engagement boobu naka la naka la demee ak tamit ni nga bëggee réseaux yi ni woo ci yenn question saillant yi nga xamante ni religieux yu bari ñemewuñ ko laal mais imam Kanté moom dana ca posté def ci page Facebook mais après nag commentaire yi dina métti lool ci waaw waaw ay cravache yu bari parfois commentaire yi dafay métti waaw mhm. mais euh, maa ngi dund alhamdulilah mhm. euh, bu ko defee euh, sant yàlla mhm. xam nga engagement lu war la ci ku jàng l'islam xam ne islam dafay prôné au Euh, aspect culturel yi ak spirituel yi nga xam ne jaamu yàlla julli woor nga xam ne kooku euh, obligation individuelle la kenn du ko def à ta place sa papa mënu ko def à ta place ni sa yaay ni keneen mm-hmm. euh, ak tamit au delà ce que je appeler des vertus morales mooy yi nga xam ne jikko yu rafet yi nga war a jikkoo kenn mënut a ñëw jikkoo à ta place mm-hmm. ah mandu bi duggul sa yoon nekk et cetera et cetera mais au delà de sax am na beneen dimension de l'islam mooy la dimension Euh, intérêt général. Mhm. Euh, lépp loo xam ni euh, dañ koo séq. islam daf ciy woote mhm. benn concept fondamental mooy mooy expliquer lépp mën naa wax mhm. le concept de justice alquran dafa ne inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan mu ne yàlla dafa santaane mandute fii justice équité ak bienfaisance Dieu ak commandé l'équité la bienfaisance wareef la yàlla du julli rek la santaane donc képp ku la naan oustaz la ba pare bu déggee Imam Kanté muy muy défendre la bonne gouvernance di défendre la transparence di défendre la justice mhm. euh, mu naan la noo euh, na yam ci diine mhm. kon xëy na moom moo xamul luy diine parce que imam bi na génn ci politique te yam ci ci ci ci ci jumaam voilà waaw souvent loolu la ñuy wax voilà mhm. léegi euh, politique bu dee mooy aar penc mi ku nekk xam àqam te lépp tegu ci justice aaya boobu waxul julli leen waxul woor leen yàlla na mu santaane julli am na ay yu ko wax mhm. mais fii dafa ne maa ngi santaane la justice mhm. et la bienfaisance kon euh, na ngeen màndu seen diggante parce que bu ñuy wax justice mooy ku nekk ñu jox ko àqam euh, te it loolu laa leen sant tey it li ma leen sant mooy ngeen rafetal ah kon bu kenn yàq mais léegi aay bi foo koy def benn yàlla bi santaane julli woor mhm. moom tam moo ne kon na ngeen juste kon yàlla ni ni ni ñu julli ni mu ko yitteelee la ko yitteelee lu jëm ci dimension euh, communautaire imposé ñu ci ay principe kon képp koo xam ni xam nga al alquran dëgg euh, waroo am benn jafe-jafe ci wax ci penc mi tant que li ngay wax justement dafay jëme ci justice dafay jëme ci bienfaisance dafay jëme ci solidarité et cetera et cetera léegi beneen exemple mm-hmm. yonent yi nga xam ne ñooy suñu exemple ñun ustaasi imaam yi mm-hmm. euh, yonent yi amu ci kenn kudul dem na ca penc ma wax ak nit ñi la mu war a wax ak ñoom mm-hmm. te yonent boo gis coono bu mu am penc mee ko indil yonent bu toogoon ci jàkkam këram du am benn problème mhm. so ay ak yëpp nii dafa dem ci penc mi ne leen de leen natt natt bu mat parce que bu ñu doon natt toujours dañuy furul mhm. duñ doon delloo mu ko wéccit bu mat mhm. bu ñu la nee deux kilos la xamal ne un kilo lañ la jaay so ay dem foofu ne leen euh, na ngeen peese mu mat na ngeen natt mu mat yàlla euh, gërëmul li ngeen di def kon yàlla ni mu ñàkkee gërëm nga bañ a julli bañ a woor noonu la ñàkkee gërëm nga jël yëfu jàmbur nga natt lu matul kon corruption bonne gouvernance mais yooyu mi ngi ci biir alquran mm-hmm. kon man su ma déggee imaam yi wax yooyu soit euh, dañu mbëmbëstal jànguñu alquran jàng bi ci war wala boog ñoom dañoo nekk ci benn état d'esprit dañ leen yàgg tiital ci ne espace public bokku ci l'islam ba ñemeetuñ cee wax dara ñemeetuñ cee gëstu dara mm-hmm. mais loolu terewul soo amee benn collègue imam nag bu ci gëstu xam ca lam a xam nga nangul ko ko nga ko ko tey man Guy Sagna mm-hmm. biñ may comparé euh, Guy Marius <laughs> mais tey jii mm-hmm. outils yi mu am yi mu am ci wàllu xam-xam ba mën a xam ne lii du bonne gouvernance ba xam ne lii corruption la man am naa ko donc war nga cee mën a wax war naa cee mën a wax pas seulement war naa cee mën a wax euh, ndey Kumba dama cee war a wax su ma ci waxul yàlla mooy xar parce que lu tax yonent ci doon wax ci penc yi mm. yonent duñ toxlaalu ci penc yi di wax yonent bi sallallahu alayhi wa da doon dox ci penc yi ak tànku neen bañ naan mais kii ngeen naan yonent la ah, waroon na xeeb di dem ci marché yi di wax mm-hmm. bëgg koo xeeb ndax li muy dem ci penc mi di wax mm-hmm. yonent ñëpp problème yi am penc mee tax mm-hmm. yonent yàlla Ibrahima lu tax ñu sànni ko ci sawara bi dafa ne buur bi doo yàlla buur bi ne ko may yàlla mu ne ko lu tax nga ne yàlla mu ne ko man ngeen ba wax baal ma ci wax ni lu tax muy wax ak buur mais dafa ñëw ci buur bi Nimrod ne ko doo yàlla Nimrod ne ko maay yàlla mu ne ko lu tax nga ne yàlla peuple bi yëpp génn mm-hmm. mu ne ko kon débat public yonent dañ cee mës a ne mm-hmm. mu ne ko man maay rey maay dund Ibrahima ne ko yaay eh, rey dund loolu jaaxal na ma mu woo ñaari soldat ne leen taxaw leen ci montaam ñu taxaw mu ne kenn ki tëbal mm-hmm. kooku tëb dee keneen ki mu ne ko bul tëb mu ne maa rey kii wax na dëgg de. Mhm. Ibrahima ne xaaral léegi comme yow nga am nga puissance bay rey di di di dundal léegi dama bëgg euh, jant bi. Mhm. nga fexe ba nga def ko sens contraire bi. Mhm. xam nga mënul am influence foofu. dëgg la mu rus. kon débat public am na jëlal yonent yàlla Moussa fan la sànnee bantam ba dimanche. ñu daje ci penc ma ñëpp ñëw ci marché bi njabarkat yi ñëw sànni Moussa sànni mu vaincre ko pour que ñëpp gis ne yàlla moo intervenir en public. kon yonent yi taxaw ci espace public bi di jàmmarloo ak injustice di jàmmarloo ak njabarkat yi di jàmmarloo ak ñi bëgg a def seen bopp yàlla bëgg a def nit ñi jàmm et cetera et cetera mais loolu cosaan la aada la lu ñu miin la ci alquran boo demee ci lu ñu wax xasul anbiya naam le récit des prophètes donc vraiment jaaxal na ma torop ma gis ay imam ay oustaz yoo xam ne jàng nañu loolu ba pare la leen gàllankoor ñoom nañ ko téyel seen bopp mais bu ñu freiné l'islam parce que l'islam dafa am message de justice bu mu war a joxe monde bi pas seulement au Sénégal. Mm. léegi su ko defee lan loolu lan lay indi tey ji mm. xam nga lan lay indi mooy tey ji Sénégal par exemple nga gis ay injustice am fi euh, léeg-léeg nga gis kilifa dina yi ne ci cell mm. nga gis par exemple kilifa église yi dañuy wax on est on est en train d'analyser man kenn xamul ma tooj et cetera benn bataaxal daal ne mm-hmm. euh, église mi ngi ñaan gouvernement bi ñu teg lépp ci dans la vérité dans la justice ñëpp rafetlu ko même jullit yi ça veut dire kon dafa am lu manqué ci ci ci ci leadership musulman lu tax ñoom duñu wax loolu loolu amul ci alquran hmm. alquran wootewul justice xoolal aaya bi ma wax léegi rek inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan yàlla santaane na justice lu tax ñee war ko mën a wax parce que ñoom gis nañ ko ci évangile ci tawraat hmm. ñun ñu gis loolu ci alquran bañ wax ba léegi ñuy loolu sax tey am na ay jeunes musulmans yoo xam ne dañu xeeb leadership musulman bi parce que duñ leen gis ñu wax ci ay question de justice et général comme si ne islam jàngale ko gis nañ fi sax imaam yi doon marché à Guédiawaye si affaire courant yooyu. ñëpp rafetlu woon sax léegi dañ naan waa ana imaam yooyu doon marché. voilà parfois sax yenn problème am ainsi de suite wala crise bi fi mu toll ñu ne mais religieux yi lan la ñuy xaar pour prononcer wu ci euh, telle wala telle question. en tout cas pour wax ni euh, peut-être fi ngay wax euh, ci côté boobu gis nekk na loo xamante ni c'est palpable imaam gis nañ ni ci korité bi à chaque fois ba léegi amaguñ solution o Sénégal yow sax dama lay njëkk a laaj ban jour nga julli vendredi wala samedi. alors waaw sama position mën na complexe mais. Hmm. pourtant su ma ko expliquer mu mu leer. Hmm. mooy que man xam nga ça fait des années. Hmm. may réfléchir di bind ci question bi kon question bu ma yitteel la. ndeysaan comme ni nga ko waxee ci commentaire yi koo xam ni gëstuwoo ci question bi te mànduwoo te amoo yar amoo teggin la neex nga wax mais ku ma suivre xam ne maa ngi dans une démarche scientifique de recherche koo xam da ma bëgg a diingat a

benn astronome marocain bu nekk Norvège. Mhm. DHL la ma yónnee na ma yónnee ma ko tout de suite mu jël ko bind na ci benn article euh, ànd ak proposition yi may def donc euh, sonn naa ci wàll boobu kon man nekku ma koy fooyee loolu ñi koy fooyee xëy na ñoom ñooy bindu leen neex di wax leen neex bu ko defee euh, man dama dem ba am conviction les que ni calcul astronomique ni ñuy calculer heure jullit heure julli noonu la ñu war a calculer weer yi. Mhm. ko defee ñu am calendrier loolu mooy sama position ce qui fait que man léegi mm, du seulement tabaski ak korité chaque mois xam nga ni ñu fi tabaski korité la ñuy xuloo mm-hmm. alors que douze mois moo am mm-hmm. te d'ailleurs boo xamul mois bi jiitu lu mu demee day impacté ci mois bi ci topp kon voilà kon mm-hmm. bàyyi ba weeru koor ngay xuloo mën naa am na un jour de plus sax boo xam ne raté nga ko ci mois bële man def naa benn benn kii benn rectificatif boo xam ni Euh, Mauritanie dañu génne woon je pense il y deux ans ñu génne benn sam benn xarit yónnee ma ko en mhm. arabe nii mhm. ñu ñu wax ne dañu juum ci benn benn jour mhm. bi ma ko bi ma ko liiree dama def benn rectificatif daal ne fii c'est pas cohérent donc dafa am jour bu ñu juum te nanguwuñ ko corriger donc euh, man sama position mooy que léegi euh, calcul astronomique daf may permettre ma xam mois bu nekk kañ la commencé ak kañ lay jeex mais loolu c'est pour moi parce que li nga xam ne dafa am dimension communautaire yow rek mënoo koo régler comme man mënuma imposer kenn dara je suis Euh, du man la ñuy déglu ci diine ci wàll yëpp. Mm-hmm. am naa droit nag léegi li ma convaincre man ma def ko loo man sama yëfu bopp la ma xam kañ lay tàmbali euh, kañ lay arrêté. Mm-hmm. Sénégal nag rawatina jàkka ja ma nekk séq fa ak nit ñi jàmm muy mbooloo mi nga xam ni fa laay jiite et ñoom la ñu juboo te miin ko ci li nga xam ni dimension communautaire la bis bu ñu jàpp ne ci li ñuy julli damay dem foofu julli ak ñoom. mais bis bi may tàmbali ak bi may arrêté day nekk benn question personnelle ce qui fait question personnelle boobu. alors ah, c'est compliqué de imam. non hmm? question personnelle boobu. mën na nag des mën na des mu recouper. Hmm. mu recouper communauté générale bi pas Sénégal mais monde bi. Hmm. mën na am des fois tam bañ ko recouper. kon yow parfois comme par exemple tey jii mën nañu comme par exemple yow nga nga nga korité. man vendredi laa commencé woon. waaw la laa waroon laa commencé mais euh, julli bi euh, officiellement ci mosquée point e bi samedi lay nekk. waaw loolu sa arrive. waaw yow nga nga nga dog sa dogu bopp. waaw dem julli samedi nga dem julli. dem jiite waaw naafila la rek. ah bon waaw naafila loolu l'islam nangu na ko. Oh, nangu na ko waaw parce que jafe-jafe moo am. Mhm. ak ñàkk juboo da ngay seet islam xamul tout ou rien. Mhm. am na benn euh, principe fiqh droit islamique bu ñuy wax ne c'est pas parce que amoo lépp dangay bàyyi lépp. donc euh, ñi ñi jàngul yu mel noonu ñoom ñooy xataraayu di def seen commentaire mhm. mais euh, mais yow exception nga de imam maanaam daal yow yow da ngay calculer sa bopp waaw moment bi eh, nga war a um koor du ma exception de àdduna bi ah. am nañu bëri ñuy def loolu soo calculer sa bopp kañ nga war a arrêté hmm. pas calculer sa bopp c'est-à-dire damay basé wu ci waaw da ngay basé wu ci waaw kii bi man par exemple koor gi nii mhm. vendredi laa commencé woon mhm. xamoon naa ni comme ni ma xamee tey euh, sama sama sama jàkk mhm. tey jii xam naa heure julli yëpp pour un mois xam naa ko parce que dañ ko calculer dañ koy. mais est-ce que na imam mosquée boo dugg tey dañ koy affiché. boo mhm. boo demoon léegi Al Jazeera wala nga mhm. dem euh, télévision saoudienne. da gis bande bi ci suuf. dañuy dañuy défilé heure julli dans tous les pays musulmans. mais imam est-ce que nekkul nag yow tamit sa genre yi moo tax ñaari julli di am Sénégal. Euh, comme que am na commission bu ñu fi teg. Euh, Ahmed Iyane Thiam jiite ko euh, pratiquement mais euh, cité religieuse maison religieuse yëpp nekk foofu et ainsi de suite. parfois sax ñu ne nañ ci intégré astron mais yow nga. nekk à part voilà am ñoo xam ni sax ci ci mekk la ñuy référé wu ainsi de suite est ce que kon du genre imam Kanté yi moo tax ñuy am ay ay ay ay ñaari julli Sénégal wala ñett. non waaw c' est à dire que pas que sama genre yi mooy indi loolu mais. waaw c' est vrai que. am na benn commentaire bu ma gisoon bu intéressant waaw euh, ni ngay gisee eh, commentaire yu ñàkk teggin yu yu dof ngeen bal ma bi noonu ngay gisee commentaire yu intéressant moo tax il faut lire mm. mm-hmm. waaw waaw dalay mm-hmm. na déjà dalay wan état d'esprit wu nit ñi mm-hmm. nga xam ne sénégalais fii lañ toll euh, kon nga jëm leen fekk si foofu avec pédagogie benn waaye def ma ne mais imam yow comment tu pour tenir ak yi may dégg ñoo xam man leen ah ñaar daal laay jëm a dimbali ko te wut ci ngërmande yàlla beneen bi j'essaie d'être aussi têtu que les sénégalais. Mhm. beneen bi mooy j'essaie de faire la différence avec eux mooy de rajouter de la pédagogie. ñu ah wax nga ma secret bi. donc mhm. léegi nag euh, su ko defee yenn saa yi nit waaye dal ci sa kaw commentaire ne la nangam na ba fin ba mu ne la pardon j'ai compris. Mhm. <laughs> boo dëgër woon bopp di demanteeg moom demanteeg moom doo mujjee ak moom foofu kon euh, du loolu xoolal euh, ndey kumba lu ne soo ko bëggee régler d'abord. da nga koy teg ci xam-xam ak gis nga déjà par exemple ñu ngi naan la wuute yi xam nga ñu naan genre imam Kanté ñoo indi problème yi. Mm-hmm. ñooñu màndu wuñ wala xamuñu moo tax. Euh, gis nga wuute yi ci ci koor yàgg na Sénégal. yàgg na Sénégal mais dañu bëgg instant bii nag solution imam waaw mais li may warandoo di wareendoo loolu lañ bëgg li ma proposé yàlla xam na ñaari korité yi ñetti korité yi lañ bëggatul mm. xam na ni mm. euh, solution la yow astro lan ngay proposé carrément calcul astronomique moom rek nga proposé xam nga nee naa la depuis mm. tubaab yi bi ñu fi jógee AUF doon ñëpp doon woor en même temps mm-hmm. sauf peut-être quelques ah yow ñun bi ñu nekkee tout tànk da toog ba quatre heures du matin am benn sëriñ bu ne sama taalibe bu nekk xam fan nee feeñ na loolu yàgg na fi après ma dégg ñu ne ibaadu yi ñoo fi indi divergence ma ne non loolu yàgg na fi ibaadu yi tamit ñi ñuy wax ibaadu indi beneen vision mondiale et man calcul man je suis pas ni internationaliste ni territoire national je suis pour le calcul c'est-à-dire pour la détermination par la science. kon yow référé woo ci mekk comme ñi su naka wooree ñu woor su waree ñu bëri dañ ma ci tooñ gis nga ci commentaire yi xoola mm-hmm. mooy li ma la wax mm-hmm. commentaire tu apprends beaucoup par am na ñoo mm-hmm. euh, ma loolu euh, jànguñ ko sama téere laajuñ ma ko au moins nga laaj par exemple man suñ ma laajee damay tontu ni ma ko laajee nii. Mm-hmm. Facebook suñ ma demee Imam Kanté vous quelle est votre référence. Mm-hmm. kon naa la tontu mais non xam nañ leen. Euh, Màkk jullit day mandu <laughs> jullit day mandu man doy na waar man ah, ah. calcul mm-hmm. astronomique la proposé. nga nga proposé pour régler le problème. comme nag nangooguñ ko j'assume individuellement sama conviction mais du ma perturber communauté bi dans des pratiques communautaire kon loolu loolu c'est c'est logique amul benn tappale bu ci am. voilà imam mosquée point euh, ñu ngi julli wala mu ngi tëj ba léegi. tàmbali nañ julli euh, démb. démb démb lañ commencé officiellement julli. waxtu yi euh, juróom. Mhm. démb non barki démb jeudi ah démb ma doon vendredi ah julli nañ àjjuma démb. mais mais début bi da nga ne woon voilà d'accord aussi ubbi bi ñuy ubbi mosquée yi ainsi de suite. waaw parce que les conditions ne sont pas réunies. ainsi de suite voilà waaw man ak ñu bëri du man mm. rek man ak mm. imam tu vois que mm. division su nekk nii xam nga ni am na jàkk yu bëri ubbiwul wala. ubbeeguñu ak ñeneen ñu ubbi. kon buñ personnaliser affaire bi. dama bëgg tamit bon euh, peut-être li ma nekk ci espace médiatique. wala imaam yow da ngay bëgg su su ñëpp waxee fii yow nga wax fee. non loolu loolu du mandu. yàlla na ma yàlla pour musal ci loolu. <laughs> la la la mooy. Mm-hmm. bu bu fekk. loolu. Mhm. bëgg loolu de kon genre masochiste yooyu ngay doon. Mhm. maanaam ku bëgg ñu lay mettital yàlla na ma yàlla musal ci loolu. parce que ñu lay wax wala ñu naan imaam daal mi ngi nii. non waaw déedéet loolu loolu loolu nekk objectif bu jullit waxuma la sax imaam. Mhm. objectif bu jullit booy wax. loolu tam alquran daf ko encadré alquran bàyyiwul dara. wa ida qultum faadilu alquran daf ne su ngeen di wax na ngeen ko teg ci mandute na ngeen ko teg ci dëgg kon wax dëgg wax lu jub. loolu moo war nekk objectif jullit. mais lan moo tax ngeen revenir euh, lan moo tax. léegi na man du ma wax du ma wax pour luy neex kenn wala benn groupe wala pour lu leen naqari attention les deux. Mhm. les deux du ma wax. pour naq ci xam-xam rek. ci laa koy jéem a teg ba am ku tane ci loolu ne ma juum nga fii ci xam-xam ma nangu mais yow waroo ko fi wax rek. wala ñeneen ñoo ko wax lu tax nga wax li ah, loolu moom day yàq l'islam léegi lu tax ngeen waxoon du ngeen ubbi mosquée point e par exemple comme sa côté après ngeen revenir ci seen décision lan moo ko waral exactement non euh, du question revenir ci décision du question revenir décision question lan la mooy que dem évaluation par étape donc bi ñu jàppee ni euh, cas yi mu ngi tasaaroo et feebar bi amul lu ko mën a faj et cetera et que rassemblement yi da koy wàllaate et que alxuraan daf ñu jàngal ñu respecté xam-xamu euh, science ak ñi koy jàngat loolu imaam yëpp d'accord nañ ci euh, même bu fekkee ni au départ c'est vrai am na yenn imaam yoo xam ne dañ jàpp ne feebar bi egguloon foo xam ni jar nañ tuuti jàkkee ma leen yéen a ngi def erreur parce que c'est euh, de la maladie c'est aux autorités sanitaires te loolu ñoom war nañ xam mm. nekkul virologue xamoo maladie bi nan lay jàllee diggante nit ak nit. dëgg la ah. du yow yaay taxaw. Mm. naan feebar bi eggul fi wala eggul fi parce que mënoo ko natt. du dëgg euh, loolu foofu kon la d'accord woon nag ñenn ñi mais comme oh, encore encore une fois mais y a pas mal d'autres imams qui étaient d'accord dans ma position la mm. preuve non bari na am na mais voilà kon buñ ma buñ ma isolé nii ba imam Kanté moo fi kii mm. donc mais tey yow laa invité yow laay laaj waaw d'accord <laughs> d'accord mais mais waaw mais mm. man tam damay défendre pour wane ni wéetuma ci sama position non du yow rek am na ñu baax voilà donc du question encore kon imam Kanté ni mais d'accord boo position mais dafa am ñu ma ko séqal ci biir euh, jàkk ji mm-hmm. euh, xam nga waaxuma war a ñëw dugg foofu di jiite mm-hmm. nit ñi mm-hmm. nit ña ñoo ma woo wóolu ma ne ma jox nañ la cër bi et ma ne leen ci condition yi dinaa ko def ñoo yéen saa salam ci boppam da doon waxtaan ak saxaaba yi ci mbiru penc bi donc bi nga xamee ni loolu am na ñu waxtaan ci man bokkoon naa sama position euh, te sama position dans le médias ak public xoolal mën na bañ a nekk la position mosquée point e. parce que bu ñu nee mosquée point E dañuy toog def réunion. Mm. am na bureau. Mm. man bu fa nekkee ku nekk benn voix nga am ak sa xalaat mën naa joxe sama xalaat foofu ne man ànduma ci ñu euh, ubbi mosquée yi mu am ñeneen ñu fa nekk yeneen imam ak ñeneen ay dignitaires daal ne ah, ñun ñu wax ñu ñu trouver benn décision duñ ne décision imam Kanté la ñuy ànd. Mm. kon décision mosquée point e mën na wute ak man sama conviction personnelle comme par exemple ni may woor kii xaaruma ci mosquée point E. Mm-hmm. pourtant maa nga fay jiite. bi ngay wooree tamit bi ñu évaluer loolu ci la ñu waxoon ne effectivement nañ tëj jàkk yi bi ñu demee ba nga xam ni léegi euh, interdiction bi ñëw nag ñu ne bon de toute façon léegi on a même plus le choix on va pas défier l'État Euh, en plus autorité sanitaire li ñu wax ça nous mm-hmm. parce que tamit ci biir bi foofu y a des médecins mm-hmm. y a des intellectuels ci mosquée yi mosquée yi mais mm-hmm. mosquée boo gis jullit yi ñoo fa nekk donc ak toutes les catégories donc disposition yëpp teg ngeen ko raxasu euh, takk masque ainsi de suite distanciation physique léegi nag voilà léegi bi état bi demee ba relever waaw décision boobu léegi discussion bi mooy léegi nan la ñuy ñëwaatee ci mosquée yi ñu defaat réunion waxtaan et cetera maintenant la décision mooy qu'on reprend progressivement les euh, prières. Mmh. tout en respectant. mesures voilà àjjuma bi passé boo hmm. ñëwoon di nga gis on a respecté les mesures barrières raxasu bi nii distance sociale bi ak euh, julli ba pare rek euh, dem bañ fa nekk di nuyonte ak hmm. Euh, hmm. wax ju bari ci jàkk ji ak yu mel donc noonu la demee donc bu nit ñi bëgg poser rek ñu répondre leen. c'est léegi école yi ñu ubbi encore imam loo ci wax. 2 juin euh, normalement si la ñu euh, ñu nekk en classe d'examen il faut préciser ça war a euh, seeni cours defi seeni examen Imam Kanté ànd na ci wala àndu ci lan mooy si sa xalaat euh, c'est pas très facile en tout cas mm. lenn xam naa ko déjà mooy que ni boo xoolee monde bi y a une tendance à la reprise des activités pourquoi le Sénégal serait en reste même pays nga xam ne ñoom la affaire bi gën a dal tey ay France ay ñeneen ñu ngi déconfiné ñun on n'était pas en confinement on était kon nag léegi euh, je vois pas pourquoi le Sénégal serait en reste même si il est vrai que cas yi ñu ngi fi ba tey bon mais loo xam ni day dem kenn mënu la wax tey jii. kañ lay jeex kañ lay jeex dans parce que dëkk bu nekk na am ak virus bi ni muy évolué mm-hmm. euh, ak même yeneen dëkk yi ñu ngi naan beneen vague mën na am comme yooyu demee na noonu ah euh, et tamit boo xoolee ba xool xale yi ñu ngi ci mbedd yi di boo xoolee ba xool xale yaa ngi ci mbedd yi. Mm-hmm. ñenn ñi seen waajur xale yu demul école ñoom il faut ñu toog ci kër ga téye leen. Mm-hmm. Euh, nar perte année blanche bi ak investissement yi ñu ci def donc moi je suis pas contre euh, la reprise maintenant la question va se jouer dans le respect euh, du protocole sanitaire ce matin rek gis na ci presse bi ministre bi di waxaat encore mm-hmm. on va respecter le protocole sanitaire donc boo bëggee am sama position claire ci affaire claire ci affaire mooy que je suis pas contre la reprise mais je suis pour une surveillance stricte des mesures euh, du protocole sanitaire et pour immédiat dès mm qu'il y a des complications de santé dans les écoles c'est-à-dire que si on commence à détecter mm. des enfants malades ou bien des enseignants malades ñu euh, arrêté ñu arrêté ne serait que en tout cas dans les dans les lieux. Mm. même là aussi il faut le faire par il faut de, façon raisonnée. il faut le faire aussi par école c'est pas parce que enseignants yu ñu testé positif. ah bon gis nga enseignants yi bi ñu leen di yàpp bi ñuy dem euh, ak Dakar dem dikk c'était catastrophique catastrophique je l'ai je l'ai écrit voilà et ça dalul sama xel mhm. parce que effectivement voilà loolu euh, tax ñu bëri seen xel dalul tamit seen xol waaw sama xel dalul foofu parce que mhm. quand ministre du transport ak ministre la santé taxaw seen bopp ci arrêt Liberté 4 mhm. nga gis pagaille boobu ak ma dégg a à cent enseignants ñu bàyyi ci garage bi je me suis mais voilà est-ce que dinañ la mën a wóolu ci ne. exactement mais justement mais quand même bon man toujours damay jéem a doxal. rafet njort ak ak may nit chance. ci mu corriger donc je me suis dit comme def nañ erreur fii. je me suis dit xam nga man je suis pas xoolal je suis pas un un activiste radical. nangam non non je je je je toujours d'aménager des des des des des des des des de sortie. pour pour pour des gens donc je me suis dit que. def nañ erreur fii nit ñi critiqué nañ man mi bokk naa ñu leen critiqué sévèrement léegi nag euh, te d'ailleurs foofu président man dama ko ci yërëm hmm. parce que moi je me suis président am na yoo xam ne da koy xool mu naqari ko parce que je me dis rassemblement boobu président su ko xoolee waru ko neex et président day wax jël leen les mesures gars yi ne ko xoolal gars yi hmm. ne ko on a pris les mesures après sur le terrain après ñu gis loolu président yëpp am nañ naqar e que maintenant euh, s'il y a un problème de santé de dépistage ñu arrêté na serait-ce que les lieux yi mu concerné voilà Imaam ñu laaj la ci leneen gis nga démb njiitu réew mi wala sax def nañ décret encore euh, daal di yokkaat état d'urgence sanitaire bi 30 jours alors que fi ñu toll nii euh, askan wi sonn nañu lott nañu ñu bari seen liggéey yàqu na euh, lan nga siy wax est-ce que yow d'accord nga ci ni ñu proroger état d'urgence bi waaw wala des 30 jours encore ba 2 juillet. difficile nga ne nga ne nga parce que. parce que ñu bëri dañ doon xaar euh, président euh, arrêté ko. ak mesure d'assouplissement yi nga xamante ni am na y'a quelques jours on s'attendait que dafay euh, lever état d'urgence couvre-feu bi ainsi de suite waaw euh, alors man je me dis que assouplissement yi nga xam ni ñu ngi koy def c'est bien comme ni ma ko waxee dans la dynamique mondial même de déconfinement ak de d'assouplissement pour que la vie économique Euh, redémarre parce que comme li ñu doon wax suñu deful attention mmh. du corona moo ñu rey mais famine mm-hmm. donc effectivement il faut faire attention à ça donc dynamique assouplissement bi c'est bien maintenant état d'urgence bi c'est beaucoup plus un problème pour man euh, juridique mm-hmm. c'est-à-dire que ça permet au chef de l'État mu mën a jël ay mesures mm-hmm. rapidement yoo xam ne bu ñu ko waroon jaarale assemblée nationale ak yooyu mën na jël temps par rapport ay urgence sanitaire mhm. donc personnellement ça me gêne pas tellement que ñu prolonger pour un mois euh, maintenant c'est vrai que c'est assorti d'un couvre-feu couvre-feu bi est que war nañ ko maintenir ba tey moi je dirais mhm. je serais favorable à ñu maintenir ko ba tey parce que mhm. voilà parce que ça permet toujours de mieux de mieux contrôler les mouvements des personnes surtout la nuit euh, ba tey donc pour man Euh, nit ñi ñu reprendre seen activité te vraiment les activités reprennent fi mu nekk nii boo génnal ci mbedd mi nga xool. ah imaam ñu bëri nga xam seen liggéey hôtel yi restaurant yi ñi nga xamante ne seen liggéey si gudd ñoom guddi carrément lañ doon liggéey ñooñu dañu taxaw carrément. Hmm, ah et puis peut bi ñu doon xaar si état bi ba léegi tamit danañ la ci laaj aide alimentaire ba léegi nit ñi ñu ngi naan mais ana aide bi gis nga ni tamit aide bi nga xamante ni état waxoon na hmm. dina ko def ci facture ndox yi courant yi tranche sociale bi dafa jël beneen tournure bu gën a grave surfacturation sax moom la euh, nit yi gis ba nga xamante ñoom ñu yëg ko kenn sentiru ko mais loolu lan nga ciy wax parce que am na ñu bëri ñoo xam ne euh, bloqué nañ ci région yi transport interurbain yi dematul dikkatul les les chauffeurs souffrent ak ñëpp ñi nga xamante ni seen liggéey ça tourne autour des des transports interurbains ñoo ñëpp actuellement ñu ngi au chômage nee nañ sax am na chauffeur suy yalwaan actuellement pour hmm. mën a dund mais loolu tamit euh, encore euh, nekk na conséquence état d'urgence oui oui c'est c'est c'est c'est waaw c'est que mooy li ma la wax cest hmm. état d'urgence bi quand même waruñu ko confondre hmm. ak euh, couvre-feu bi couvre-feu bi couvre-feu bi c'est un outil. voilà bu buy dolleeku ci état d'urgence parce que assorti d'un couvre-feu. bi. Mhm. Euh, benn outil la rek euh, bu ñuy utiliser maintenant état d'urgence comme ni ma ko wax pour man comme cas yaa ngi fii ba tey. Mhm. décès yaa ngi dolleeku taux de séropositivité ba tey mi ngi yéeg. Mhm. wala boog mu mu ngi nekk niveau bu élevé. ah gis nga léegi sax ñu ngi bàyyi ñoo xam ni. ils peuvent être asymptomatiques. extra leen dem leen seen kon feebar baa ngi fi ba tey. donc pour man waruñu relâcher Euh, ba mel ni dañu am une dynamique négative. Mm-hmm. léegi mm-hmm. mu des nag li nga wax noonu effectivement ci couvre-feu bi euh, ak ñiy liggéey ci guddi yi et cetera. c'est vrai mm-hmm. mesure boo jël nag am na ñu muy pénaliser ak ñu muy euh, arranger. mais maintenant transport inter régionaux yi tamit. c'est vrai que pour man quelque part loolu bokk na ci lu gën a mën a gaaw a lawal feebar bi ci Sénégal gi yëpp. donc foofu il faut faire très attention. te je crois que gouvernement mi ngi koy suivre ci assouplissement mooy fi mu nekk ni bàyyi nañu déplacement interurbain yi. Mhm. mais dañu bloqué pour l'instant surtout Dakar Thiès. Mhm. mbu euh, Diourbel région yooyu mu ëpp ka mhm. ñu ne kon foofu dugg ak génn bi foofu nañu fa def attention. donc côté boobu je pense que décision boobu ça peut se ça défendre. maintenant couvre-feu bi je suis d'accord couvre-feu bi war nañ ko mën a xoolaat. 21 heures sax pourquoi pas sax lever ko bu fekkee ni voilà bu fekkee ni buñ ko lever ñay liggéey dañu respecter mesure. mesure d'hygiène voilà mesure d'hygiène yi ñu lever ko wala au moins ñu ñu restreindre ko que problème bi ñu bari du sax euh, état de peut-être ànd nañ si mais maanaam conséquences yi le fait que seen liggéey taxaw na ñu bëri amatuñ lu ñu dundee te et puis aide doon xaar ci état bi mu waroon ñëw ñëwul loolu c'est pas normal c'est ça le problème voilà aide aide bi mhm. euh, ministre Mansour Faye clash naa ko plusieurs fois nee na mhm. aide bi xoolal ni mu yéexi mhm. même le président léegi mu jeex plus de deux mois nee naa leen aide bi après Covid bi après Covid peut

en rigueur bi. ça pose problème voilà ñoom comité de suivi lu tax duñ dénoncer lenteur yi ba pare wax lu koy expliquer comité de suivi loolu la war a jëriñ de comité de suivi ça pas dire seulement euh, topp gars yi ci lu leen neex mais mm-hmm. ça veut dire euh, évaluer topp leen. Euh, critiquer loo xam ni jaaduwul ba pare proposer leen lu ñu war a def pour mu gën a gaaw man comité de suivi du ma dégg ñu wax dara. Mm-hmm. am na am na ku si demee ni ki kii ba moom génn na. am na ay membres yoo xamante ne ñu ngi woon ci force Covid mm-hmm. ay nit ñu bañ a liggéeyi. te doo leen jox loo xam ni mën nañ ci suturlu kon effectivement couvre-feu bi su fekkee ni euh, aide bi nit ñi war a am jotuñu ko te nag mën na nekk loolu ñu bañ ko jot parce que ñi nga xam ne dañuy liggéey ci guddi gi ñu bëri si ñoom ñu ci kenn kontew leen comme ñu pauvre. exactement parce que dañu ay hôtel ak yu mel mm, noonu. Mm. kon ñooñu effectivement duñ ca jot duñ ci jot. Mm. kon ñooñu effectivement je considère que euh, war nañ mën a lever. Euh, couvre-feu yi bàyyi leen ñu dem seen liggéey te ñu respecter les mesures barrières xoolal tey ji fi nekk ni masque yi yëpp nii mm, mm. du bàyyi nañ dellu donte woon man je trouve que c'est imprudent mm. mais bon ñu ngi koy def di raxasu di takk masque voilà kon tam je vois pas pourquoi yeneen secteurs yi tamit duñu leen bàyyi ñu ñu def loolu kon pour man je pense que mën nañu lever euh, couvre-feu bi te maintenir quand même état d'urgence pour que su suñu dara naree bett président mën a gaaw réagir loolu moom sama sama intuition la que ni feebar dafa doy waar. voilà te que voilà. voilà ñu ngi leen fàttali ñu ngi dalal imam Makhtar euh, Ahmadou Makhtar Kanté nekk imam à la mosquée de Point E nekk écrivain ak fondateur bu portail web euh, tibian.com nekk tamit animateur euh, religieuse émission religieuse ci e temps bi sax bareetul mais foog ñu laaj la ci ñaari question bu njëkk bi moom mooy gis nañ imam stigmatisation. bi am ci ñi am ñi ne dañoo am euh, coronavirus ak ñi nga xamante ni dañ ne dañoo faatu ci coronavirus am na ci yenn localité yoo xam ne ba ñuy dem pour denc ñooñu euh, dañ ne duñ leen fa suul loolu lan nga ñu ci mën a wax. ñaawlu naa ko trop. voilà ñaawlu naa ko trop. Mm. vraiment euh, te ña nekk jullit di def loolu nañ seetaat seen bopp te ragal yàlla te am yërmande te am worma. Mm. amu ci kenn koo xam ne tey sa baay. Mm. ngeen baal ma waxin bi wala sa ndey wala sa sa jëkkër wala sa jabar wala sa doom mm-hmm. waroon na faatu ci feebar boobu mhm. ñu war koo indi ci sa juma ci sa jàkka toppatoo mhm. ko mhm. Euh, wala ñu toppatoowee ko ci hôpital ba ndax les mesures yi ñu war a respecté war ko yóbbu ca sa armeeru say parent fa ñu nekk ay nit taxaw ne du ñu fi suul nga nga rafet loolu amul si ñoom kenn. ku wax parce dafa am corona. waaw corona ko faat. amul kenn si ñoom koo xam ni bu bu daloon sa njaboot di ko nangu. moo tax en général na nga seetlu dara yooyu en général koo xam ni doxandeem la ci koñ bi. ah wala amu fa ay mbokk lañ koy def na nga ko mm. seetlu mm. loolu na nga ko seetlu maanaam koo xam ne amul mbokk ci koñ bi carrément mm. koo xam ne dafa ñëw rek xëy na sax ci kaw ga la jógee ngeen baal ma waxin bi ñëw euh, ci taax yi di fi jaayantu di liggéey mel am fal fu ma luwee yu mel en général kooku la ñuy def loolu mais ku nekk ci koñ bi cosaanoo fa am fa famille di dem ci jàkka ja xamanteeg nit ñi kooku mbokkam gaañu foofu ñu ne kenn du ko suul fi loolu nga dimension sociologique boobu hmm. nañ ci bàyyi xel. mais pour yow loolu lan moo ko waral imam xam nga lu ko waral ban jàngat nga ci am. lu ko waral parce que nekk na loo xam ni vraiment on s'attendait pas. di gis yu mel noonu au Sénégal mais hmm. xoolal sapeur pompier yi. Hmm. dem liggéey pour nit ñi. ku sa kër la ak sapeur pompier bu ñëwul nga ne yéex na ñoo ñëw am na ñoo nangam ak du dëgg ñoom ñu dem di liggéey guddeeg bëccëg euh, dem euh, jot feebar bi ngir liggéey pour askan bi ñu bëgg leen yóbbu Bambey euh, ci benn bërëb ko Euh, population bi ne nañ fi na fi ñuy génn sapeur pompier du du man du ñu yow. Mm-hmm. samay frère lañ say frère lañ say papa suñu doom et ñoo fay liggéey sapeur pompier yooyu. du ñu mm-hmm. benn catégorie à mm-hmm. kon ñooñu ñoom ñoom yan façon sénégalais lañ. kon ça veut dire que éducation à la citoyenneté déjà jàppal. <laughs> c'est l'échec total. nit ñi identifié wuñ ci benn dëkk ak solidarité. te loolu mooy citoyenneté mooy bokk ci réew mi bokkin bu rafet. ku nekk nga jox ko cëram. yow miy wax ne ana police bañ may bañ may dóor ay jaasi. Mhm. ana sapeur pompier bi sama kër di lakk sapeur pompier boobu feebar. Mhm. Hmm? mais il faut mu am fu ñu ko yóbbu pour faj ko. muy Dakar muy Matam. Mhm. nga ne leen lu ñu indi ko fii. loo loo war nañ ko seetaan mais kon problème d' éducation la citoyenneté à la base aussi bien dans les écoles que dans les daara et cetera fu ñu éduquer nit. état bi échoué na ci éducation à la citoyenneté yàgg naa dégg président am na discours bu mujjoon ba mu ca pare je crois que lañ ca pare. donc les gens comme xamuñu feebar bi lan la jàpp nañ ñi ko am feebar bi nii bu ñëwee Bambey ñëpp mhm. feebar mhm. Euh, te li la koy wan mhm. mooy du rek Sénégal fii xoolal Côte d'Ivoire saccagé nañ benn centre à Abidjan c'est pas c'est pas des Sénégalais ña ko def noonu donc ignorance day indi day indi peur loo xamul day tax nga ragal ko ñàkk éducation citoyenne bi mën a wax beneen bi aussi mooy euh, pour man imam yi seen rôle de sensibilisation des na parce que ñooñu boo koo ci wàññi quatre-vingt-quinze pour cent dañ naan na jullit lañ mhm. alxuraan lañ gëm xadis lañ gëm li nekk ci alxuraan ci prévention ak yar nit ñi ci wàllu boobu euh, dafa des trop tout le temps sermon yi na ngeen julli na ngeen woor safara mhm. ngeen nar a dem et cetera mhm. mais nu ngeen war a dundeek penc mi nu ngeen war a wormaalee seen dëkkandoor et cetera et cetera dafay xaw a manqué dafay des te léegi islam dafay topp nit di ko wormaal di ko wormaal ba mu juddoo xoolal ngénte bi nu ñu koy accompagner wormaal ko ba bu muy faatu noonu lañ koy maale moo tax islam bëggul sax ñu intervenir ci néew bi loolu moo mhm. taxoon mu indi question boobu mhm. néew bi nga xam ni euh, dafa am euh, corona nuñ koy traité islam ne leen attention dañ ko war a def li def li su fekkee ne dafa laaj li kon ñu nangul ñëpp pour wat que même ba mu faatoo mënoon nañu wax ah def leen ci lu ngeen soxla rek kon waxuma la mhm. léegi euh, plus les mêmes sénégalais yi doon wax ku ku ku ku ku ku génn àddina bitim réew nañ la indi fii nañ la indi fii par force. Mhm. ñooñu am nañ droit ne léegi ku faatoo ci réew mi ci boppam. Mhm. duñ la suul fii mais suñ la suulul fii fuñ lay suul. ci àll ba. Mhm. ku ma gis loolu loolu ñaaw mooy li ma wax amul kenn koo xam ne bu ñu def la ko wala sa mbokk ñiy wax loolu nañ leen woo ku nekk ne ku ci nekk ci yéen boo faatu woon tey ci corona ah na nga bindaale sa testament ne nañ ma suul ci àll ba kenn ko def kenn du ko signé kon ana dëggu ana yërmande ana worma kon mais imaam nañ gën a jël seen responsabilité ci euh, euh, ñi ci ci ci ci wàll boobu mais aussi état bi na jël responsabilité parce que état bi tam moo war a protéger l'honneur des gens et des familles des biens des et des et des corps ah donc jël les parce que yu mel noonu su amee en général ay nit ñi ñooy génn nii mais am na ci ñaar ñetti nit. Hmm. yu ëppal yoo xam ni boo leen nee nuustee. bu takk der ñëwee taxaw. dinañ taxaw ne leen moom leen nit ñi. Hmm. ah ñoom foofu moom da da koy laaj. parce que am na question yoo xam ne nekkatul argument. Hmm. yow benn citoyen simple nga amuloo droit taxaw di opposé ci ñu. suul kii wala duñ xam ne nag bu eggee foofu. Hmm. état bi dafa war a aussi euh, utiliser la force de l' euh, pour rétablir la la la justice. li hmm. ndeysaan li kii waxoon. Euh, Aboubacar. le xalif Aboubacar le deuxième le premier xalif. am bi yonent bi génn àddina rek am ay naar yu nekk ci àll bi ne joxe azaka parce que yonent bi lañ ko doon jox génn àddina Aboubacar ne leen non. yenent bi yàlla moo ko wax mhm. euh, ku woomle ba am lu ëpp say soxla nga joxe azaka su ngeen ko joxewul ma indi armée jël ko parce que droit pauvre la mhm. allahu akbar xoola loolu kon day moment yoo xam ni état dafay utiliser forpam pour rétablir la justice mais doo bàyyi quelques individus xoolal ñoo ñaata lañ ñaata lañ dans les sénégalais on quinze millions de <laughs> nga bëgg a bàyyi benn benn cent sénégalais mhm. taxaw fii di def leen neex état bi di Euh, un certain voilà, de voilà je suis une minute imam li am euh, fële ca cité Mixa encore euh, di remettre wala di andiwaat débat ci crise des valeurs problème de morceau Sénégal gis nga ay xale yu dajaloo woon ci appartement ainsi de suite di def naka su dul noonu ba actuellement yoon mi ngi leen teg loxo lan nga ñu ciy wax juste une deux minutes ñu tàgg bettuma parce que loolu c'est récurrent te tamit dans deux semaines foog naa di nga ci déggaat lu mel noonu parce que c'est d'abord pour man éducation parentale euh, pas éducation parentale. Mmh. mooy que xale yooyu ci ay kër lañ jógee doxuñ ci mbedd yi donc il faut poser la question euh, de de de la responsabilité des parents. Euh, ñenn ñi. Mm-hmm. yenn xale yooyu am na si ñoo xam ni ils sont en rupture familiale donc mooy toujours la crise de la mm-hmm. famille am na ñoo xam seen yaay kese lañ nekkal. wala gisuñ papa gisuñ papa. wala gisuñ papa yaay. voilà donc moo tax les accabler sans sert à rien xale yooyu dañu ay victimes lañu parce Euh, cellule de base bi leen war a jàppale crise d'adolescence xale xale bu jigéen bu am 14 ans mm-hmm. su amul grande sœur bu koy jàppale mm-hmm. tantam parce que ay xale lañ ah, ay xale lañ je vais mm-hmm. pas les accabler ay xale lañ ay xale lañ yu am yu traversé crise d'adolescence découverte de la sexualité et cetera il faut les accompagner communiquer avec eux suñu amul papa bu ñuy waxal yaay bu ñuy waxal bàjjen tante ñu am rek seen whatsapp di seetaan ay porno et cetera ah c'est normal que ñu aboutir ci résultat yu mel nii ak ñiy défier la figure de l'autorité par exemple xoolal euh, boo gisee benn xale bu bu am ans day day am tendance la crise de l'adolescence mm. mm. c'est de défier l'autorité et la première autorité c'est son père et mm. donc yooyu xam nañ ko donc famille bi su fa nekkatul jouer rôle bi muy jouer Euh, noonu lay demee xale yooyu nee naa la ci kër lañ jógee dugg ci biir première chose deuxième chose il faut revoir je l'ai écrit ce matin je crois wala démb mhm. le statut de ces résidences là mais attends résidence appartement meublé yi mais c'est de passe de xawma mhm. de de de mhm. am na ñoo xam ne sax extérieur lañ nekk am na si ñoo xam ne extérieur lañ nekk di dundee loolu di yàq suñu njaboot am na ñoo xam ne ñu ngi extérieur États-Unis France lañ nekk jënd fi ay immeuble di yàq suñu njaboot ñun ñuy seetaan tey ji même mënoo fa am résidence comme ça nii. Mm. mineur dafa dugg euh, ndeyku ba. Mm. même Europe résidence mineur dafa duggu mënu am xam ku ma doon wax fan yi am na ku ma doon waxtaana moom ci masala bi mu ne mm. man dem naa Cuba mu ne ma hôtel yi fii. mu ne ma femme adulte sax seul nii du dugg. ma ne ko nga ne ma mu ne ma ma ne ko ah mu ne ma pourtant du jullit waxuma la mineur comment comment on peut. laisser des jeunes fii de quatorze ans. de quatorze ans ñuy dugg ci benn résidence boo xam ne du seen kër te du seen kër mbokk que résidence yooyu. seen statut euh, amul légalité kenn du ko contrôler c'est juste l'argent donc il faut revoir le statut c'est ça pilule dans les quartiers foo romb lay gis benn immeuble ñu naan meublé résidence mhm. donc c'est des lieux de proximité waxuma yëpp mhm. mais donc il faut que les services mhm. contre le rôle de l'État est là la crise de la famille euh, est là donc ak maintenant bien sûr le reste euh, bien sûr toute l'ambiance de pornographie ngeen baal ma kàddu gi mais c'est un terme qu'on doit utiliser euh, euh, de sexualité mais lu baax la ci lislaam mhm. euh, du ñàkk xëy na benn jour nga invité ma ci. xam naa danañ ci wax bu bu bu àndul ak yar bi mu war a ànd. Mhm. mais day indi lu mel ni kon dafa am ay instincts yu yeewu ci xale yi ñu nekk en crise d'adolescence il faut accompagner euh, euh, par une bonne éducation à la sexualité sexualité nag bu nekkee question tabou tamit non bul wax ci yooyu kersa. Mhm. kon tamit. xale yi di ko régler seen diggante maanaam xale te xam nga xale mënul yar xale donc ça pose problème tant que tojuñ par des par par deux garçons de 21 ans. Mhm. ça pose problème encore 21 ans c'est des jeunes de 14 ans <laughs> imaam ñu bàyyi la nga tàggoog auditeurs yi ak internautes yi waxtaan bi am na solo macha allah. voilà euh, waaw ndey Kumba di waxtaan bu amee solo rek. Mhm. Euh, mooy que question yi. Mhm. Euh, dafa yitteel nit ñi. tegu ci yoon. ba pare foog naa tamit xëy na. en tout cas bu ma tontuwul ci lépp. mu leer parce que xam nga ndey Kumba. samay tontu muy tontu keneen. warul nekk tontu. Euh, pour est-ce que euh, damay satisfaire ñi déglu mm-hmm. mais dama war a tontu pour nit ñi xam euh, li ma wax fan laa ko teg et j'espère que jéem naa wane sama position lu nekk fan laa ko teg loolu moo ci gën a am solo. voilà mi ngi noonu ñu koy remercier bu baax a baax euh, imam Ahmadou Makhtar euh, Kanté nekk imam à la euh, de Point E nekk écrivain ak fondateur bu portail web tibian.com nekk animateur religieuse émission plutôt religieuse ci groupe e ñu koy remercier bu baax a baax ci disponibilité am di remercier Léon Paul nekkoon ci technique beeg réalisation bi di leen remercier yéen suñu ak ñun chaque samedi 10h jàpp 11h ak internet yi ñu doon suivre euh, ci réseaux sociaux yi comme euh, ba samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak euh, beneen invité jaa ngeen